voilà présent présent, euh, j'ai senti un présent qui est un peu comblé heureux. Mm-hmm. surtout avec fenêtre bi de qui on a remporté les trois matchs on a on a en face de nous un présent bu content. content. Oui, oui, oui, oui, content, je pense que tous les Sénégalais sont contents. Euh, mais nak euh, étape la mu ngi que nga examen écrit am oral jàll nañ écrit bi des na oral bi fin fenêtre mois de février bi donc di ñaax ñep rek niñ def ni euh Monastir ñu def ko au mois de février pour mën qualifier dem coupe du monde parce que dama koy wax euh, qualification bi du coupe du monde rek parce que au delà de la coupe du monde ñun suñu objectif moy dem jeux olympiques de Paris Et pour nga dem jeux olympiques il faut nga qualifier coupe du monde boo la coupe du monde est le meilleur pays africain en termes de classement Et l'équipe qui ma je pense que Sénégal war ambition légitime. Mm-hmm. ok mais fenêtre bi bi bi bu Monastir euh, y avait quand même une certaine pression à votre niveau est-ce que sentiez-vous une une pression juste avant avant compétition de démarrer surtout que euh, dafa amoon quelques contre performances à Alexandrie. wa pas pression ba dama ko tuddee effectivement xam nga aussi bu ñu jëlee lu mel réew bu la dara ñu eh, dem di jouer ak suñuy nawle eh, li nga bëgg mooy sa réew am ndam eh, mais sport la aussi sport da ngay gagner di perte parce que li nit ñi war a xam aussi mooy ñun li ñuy def pour gagner loolu la yeneen pays di def mbaa di def lu ko raw pour gagner donc bu ngeen tasee kenn mën na gagner tey suba suba mais ñun suñ biir waxon nañ né objectif bi moy ñu jéem qualifier coupe du monde euh, comportement bi ak résultat wu Monastir bi c'est vrai euh, euh, wàññi woon na wàññi na chance du wàññi woon parce que ba légui daf ñu top. Mhm. parce que aujourd'hui bu fekkone amone amoon résultat yu baax Alexandrie qualification mo day gëna yomb parce que man li ma wax xalé yi dama leen buñ fi nekk di calculer nangam ak nangam. lu nga xam ne nii mën ko def pour qualifier à 100 pour cent duñ fi nekk di calculer mooy gagner les six matchs et gagner les six matchs ça passe d' par gagner trois matchs mën def nañ ko si fullaak fayda ak jom ma leen di féliciter di leen remercier di féliciter également entraîneur bi ngañ de Sagana Diop di remercier ñëpp encadrement médical encadrement technique les fédéraux ñëpp daal ñu wane ne effectivement administratif wala ma sant ñëpp waaw. D'accord, ok y'a ngi tudd léegi y'a ngi remercier tout à l'heure euh, entraîneur bi de Sagana. Ligue mu ngi ban boo si doon boo ko doon jugé ban ban façon jugement lay nekk mun nga un peu le son travail. ah moom kay mu ko doon jugé moom xanaa jugement positif parce que ñu ngi wax ñetti match sax mais six matchs là les amicaux voilà, parce qu'il y a les matchs de préparation deux matchs contre le Cap Vert. nga xam ni nii dafa demi-finaloon basket parce que bu ñu ko fàtte tournoi mois de juillet mu amoon Kigali Poulam mu dóor Nigéria am ay joueurs qui nga xam joué Euroleague donc ñu avons ko aller retour dem aussi à Monastir dóor Égypte bi nga xam ne daf ñu dóoroon par plus de 30 points loolu nag boo si boolee victoire bi contre le Sud Soudan nga xam ne amaguloon défaite ak le champion d'Afrique euh, la Tunisie ça veut dire du ay match ca calax calax lañ joué. Euh, match matchs que joué c'est des matchs de niveau demi-finale finale basket parce que rencontré tu as rencontré l'équipe championne d'Afrique. au match Sénégal Tunisie niveau demi-finale finale Afrobasket Le euh, Sénégal Sud Soudan Soudan actuellement je ne sais wax si pas suis wax ne Soudanais mais ay Soudanais yu États-Unis Australie. Australie donc nous sommes américaine et canadienne voilà Nous, nous, attention euh, nous dominer basket africain Nous euh, nous gagné ça veut dire que c'était l'équipe à le niveau euh, international donc nous avons jours donc moi, féliciter ok donc changement le moo ne changement nomination ça s'imposait quand même Le mot le signifie, mun nañu wax loolu. ça s'imposait xam nga entraîneur doo patron fédération entraîneur mon ñëw ne yow lu la neex mooy am mbaa yow yow yaay jox ordre mbaa yow yaay kii président fédération soo ko defee rek day fausser les données man euh, amoon nañ entraîneur Amener a ay faits yu constaté ñu ne kii mënatuñu ànd ak moom àddina nag moo demee noonu donc ñu changé entraîneur jël beneen entraîneur yàlla may nañu ndam Nous xaar pour préparer fenêtre février bi di ñaanal yàlla le mayaat ñu nous. mais changement nous, il y a aussi quelques euh, polémiques gauche droite Comme naa du ñàkk yow jot nga dégg lu tu nga mais en tant que président fédération comment nan nga supporter les critiques gauche droite est-ce que tu arrives au moins à à à fermer oui oui parce que li si am solo rek faire. yow li parce que am na ay décisions soo forcément da nga xam ne dina parce que au delà même de am na ñoo xam dañuy wax de façon objective parce que xamuñ am na ñoo xam dañuy wax parce que dañuy wax nii rek pour attaquer la gratuitement euh, mais li am solo wax naa ko léegi entraîneur ak fédération dafa am relation yu mën a am su relation yooyu nekkatul fédération dafa war a jël responsabilité mu changer entraîneur ak lu mu si góobee nag gar ko parce que tamit njiit boo war a jël décision da ngay jël décision parce que bu ñu continuer woon situation bu ñu nekkoon Alexandrie groupe bi état d'esprit bi nekkoon ñu ne dañuy ànd noonu dem monastère ah waxuma yàlla rek xam ne mais amoo yoon yaakaar ne li ñu am nii yàlla dinañu ko may di wax nag ne effectivement euh, am nañ ndam monastère mais ñu war a gën a continuer liggéey pour que mois de février yàlla may ñu qualification mais njiit daal di si am solo su situation amee nga analyser da ngay jël décision bi nga yaakaar ne danga ko jël pour intérêt réew mi ñun bu koy jël loolu rek lañ ci yaakaar ngañ am na profil bi xam na équipe bi comme dañu war a dem beneen compétition dans un mois nañ ko jël mu xam ne day nekk genre continuité. Hmm, donc responsable dans ci changement boobu noonu. non non non parce que prérogative loolu suñ prérogative la bu ñu jëlee entraîneur bu nga xam ni jubóowu wu ñu doon moom waaw mënatuñu liggéey ak moom dañ koy changé. d'accord yaa ce que. est-ce que yaa mais bien sûr parce que comme parce que ah. bi y a une compétition bëri na lu bëri surtout mais toutes les catégories boo xoolee ñu ngi compétition est-ce que. Oh, non mais parce que parce que boo xoolee aussi ñaata nit ay wax loolu aussi c'est important bëriwul ñuy liggéey xam nga man au contraire man parce que bi dama leen yoreel euh, njukkal euh, parce que niñ ma falee euh, au premier son premier mandat 75%, quinze deuxième mandat par acclamation. assemblée générale yu ma convoqué yëpp par acclamation comité directeur am na ñu xam ne ñuy wax ah, président yow loo wax loolu lañu ñu wax oto doon carte blanche xam nga loolu bu lu ko ay nit defee waaw bu benn nit ñaar nit nekk jël attaqué parce que àddina aussi kenn kenn amul unanimité donc c'est tout à fait normal li may demande rek que mu nekk ay critiques objectif mu bañ a nekk ay attaque personnelle mbaa mu nekk ay accusation gratuite parce que aujourd'hui aussi loolu moom mooy kii bi mais su fekkee critique objectif la y a pas de problème. la nelaw. non non non terewu ma nelaw mooy non non non vraiment taw lu ma tere nelaw du du loolu. Hmm. loolu vraiment euh, Folle pour man c'est une passion. du sama liggéey. donc man sama liggéey yaa ngi nii sama bureau avocat la. Hmm. donc euh, bu ma demee ba mu tere ba nar nar ma tere nelaw ma bàyyi ko. Euh, ñu yaa ngi tudd léegi waxu mandat. di nga di nga postuler encore pour prochain mandat mun nañ xaar loolu. non mënaguma si wax fu mu ne vraiment j'avoue c'est sincère ah. bu mooy wax ak yow nii léegi jëlaguma une décision par rapport à cette question. mu ngi sa xel quand même. de bu ma la waxee jëlaguma une décision par rapport à ça rek mooy jëlaguma mën na nekk comme mën na bañ a nekk. Uh-huh. waaw mais ça c'est sincère mën naa présenter wu ko mën naa bañ a présenter wu ça dépend de plusieurs éléments yu nga xam ne nii. voilà qui kiyeeguma ko. Hmm. ok d'accord euh, euh, fenêtre kii bi 5 euh, bi. Mhm. février 2023 à Dakar. Mhm. même si c'est pas encore confirmé mais xam ni am bëgg-bëgg bi. ministre avant-hier mu ngi wax ni carrément. aussi am nañ bëgg-bëgg mhm. est-ce que vous avez une am garantie que ça ça va se tenir à Dakar en février 2023. waaw moom lañ bëgg euh, ministre mu état bi joxe na accord de principe pour ñu déposer organiser euh, léegi FIBA moo si des euh, yaakaar naa aussi am na yeneen pays waa peut beneen pays bu ma dégg bëgg na organiser mooy Égypte mais dégg naa aussi que gis naa aussi que en tout cas waxtaanoon nit ñi ba de façon verbal ñu defoon répartition yi que euh, Égypte day juillet, juillet Tunisie jël août février Sénégal ce n'est pas officiel la désignation officielle bu Sénégal oui. mais wax naa ko waa FIBA yi démb démb yónnee lettre que dama bëgg organiser. Oui, il di leen wax aussi que effectivement hmm, l'organisation février 2023 le principe de le donner à Dakar était acquis donc mais am nga que. am naa si yaakaar mais du suma domaine nag xam nga lu nga xam ne ni yow yaa koy décider aussi mënoo wax ne dinaa ko am à 100%. pour cent mais déposé nañu nañ dossier on a un bon normalement un bon dossier une belle salle de beaux hôtels maintenant am na yeneen yeneen éléments yu dugg. dans ça demande des frais hein? ça hmm? demande des frais organisation non non non cher trop trop fenêtre cher trop. ñaata la amul sax droit yi ñuy fay dafa am compétition yi ñuy fay mais fenêtre doo fay dara voilà donc euh, c'est pas cher. mois de février on a organisé Sanapa Sanapa côté très cher ñaata la war a nekk parce que mën nañu am benn montant moo xam ne leer na ma lii il peut être que lii je pense que quand on a un budget pour organiser entre ces six équipes un tournoi de six équipes entre cent cent millions on peut on peut on peut organiser. cent millions 150 millions on peut organiser fenêtre en termes de frais. et il n'y a pas de droit à payer. on sait tous que peut-être que vous n'êtes pas très bien placé pour évoquer la pour question bi Matar avant-hier soulever la gestion euh, FIBA organisation bi euh, par rapport à l'équipe nga a même boo remporté le trophée même les jours, en retour financièrement de jukki Bob, qui est en tant que président de la fédération ban euh, ban jàngat nga mën est-ce que partagé nga avis boobu. waaw xam nga yow wax nga ko ne je suis peut-être mal placé pour en parler je suis pas mal placé en parler mais. Il y am un lieu pour en parler euh, en tant que parce que mon, suis laay tout le temps euh, club Je dama leen di reproche dama leen euh, affilié wu fédération Je suis appliqué da la appliquer réglementation fédération Je suis di tirer sur la fédération de critiquer de l'extérieur de la fédération alors que vous êtes soumis au texte de, la fédération am a un lieu pour wax réunion bu comité directeur su amé assemblée générale su amé la parole est libre ku nek mën nga ñoo wax lu na neex donc problème bobu ñun position buñ ci war mëna am assemblée générale jotee dinañ ko défendre inshallah allah. on peut dire que le basket se porte bien puisque petite catégorie ñu ngi compétir les seniors aussi pareil. oui xam nga nit ñi dañuy wax rek euh, notre bilan est largement positif boko xolé buñ bu parce que Sénégal ñun ay am na lu nga xamné ni mom lay wax tout le temps les premiers les a exactement les premières la première qualification du Sénégal au deuxième tour en coupe du monde de filles, ñun la euh, euh, première qualification en quart de finale coupe du monde petite catégorie i 19 euh, ñun la donc nga avons ñu nous dem nañ JO dans l'histoire du Sénégal nous avons la Sénégal dem JO JO de Rio ñu qualifié deux fois nous avons tournoi pré-olympique actuellement on est médaille de bronze chez garçon donc nga xool deux fois man quatre fois laa dem ak ñoom afro basket trois fois yëpp dama final gagné une finale, perdre deux final daaw lañ dem ñu rajeunir rek ñu jël quatrième ak yeneen ak yeneen yu nga xam ne nii boo ko xoolee barki démb lañ jógee jeu islamique solidarité islamique basket moo une médaille d'or C'est discipline donc loolu moo tax boo xoolee ñuy wax naan parce que xam nga wax rek wax mom yàq la mais bo xolé dans les faits dans les faits voilà nous on fait partie des fédérations qui ont gagné si basket bi ou des présidents de fédération yi nga xamni gagné nañ te wu lolu am solo c'est la meilleure fédération. oui vous avez la meilleure fédération. pas la meilleure fédération. je terme au Sénégal en termes de palmarès, le basket, c'est la meilleure fédération. Mais ça, c'est pas moi seul. Ligue, bu nga xam ne nii fekk naa ñeneen ñi def si seen wàll ñoom président Ablaye Sey, ñoom Ibou Diagne ñoom ñeneen ak ñeneen ak ñeneen waaye ñun aussi on nañ si suñu waar je pense que ça c'est important. Et une dernière question et là je ma ko mën a permettre euh, dama bëgg xam lay fonds de la fédération pour on sait que c'est pas facile organiser une saison entière. Euh, avec, surtout avec les dépenses des les équipes nationales fonds euh, sponsoring sponsoring aussi aspect que nga euh, euh, fédération je pense que war nañ communiquer en terme de sponsoring contrat de sponsoring de sponsoring la ak ñaata la que aujourd'hui fédération a compétition compétition au Madagascar, l'essentiel, à part les billets d'avion, la préparation, les frais d'hôtel payés là-bas, les primes, les salaires des entraîneurs, tout ça, la fédération Nous avons aussi entraîneurs Hall, nous pourrions faire des ñu nous a war ñu door a sélection parce que boobaa mën nañ des nax joueurs yi nga xam une détection dañ leen defoon détection ci monde entier bi yëpp on a dépensé 20 millions en billets d'avion pour Nous l'avons ñu loger un hôtel fédération fay ñu liggéey ba pour que entraîneur bi joueur yi détecté pour que leen ci liste Nous avons nous avons ni déwén d'une perte temps déjà une liste élargie de 16 18 jours. tout ça c'est important Nous pour préparer la relève et Inch'Allah, ça va payer donc que nous am solo le reste maintenant

Euh, yàlla may ko ay ndam voilà mu xool rek euh, beneen yoon ba ñu éviter yenn erreur de yu nga xam ne nii erreur de jeunesse laa ko compa laa koy considéré moo xam ne fédération buñ la dénkee ñoom ñoo la dénk dafa am benn comportement boo war a am ak ñoom euh, da nga leen war a jàppale Euh, pour liggéey bi gën a mën a rattax. donc mën na ñëwaat mën na sax mën nañu as on peut mu mu liggéey ak yoon ngeen liggéeyaat on sait jamais. non am nañu entraîneur fu mu ne nii kay waxuma xalaatuma beneen entraîneur. fu mu ne nii non pas maintenant président à l'avenir. non fu mu nii mon projet c'est de dans la durée avec Ngagne Descentes. d'accord ok merci président. merci beaucoup.